retrouver euh, dans cette émission Cercle des Arts, une émission euh, donc, culturelle, donc, artistique. Et euh, pour démarrer ce plateau, donc, je reçois comme invité M. Fall, cher Bakefal, donc, que je vous présente. Il est dans l'administration de Walfadri, mais en même temps, donc, euh, il sait beaucoup de choses. Euh, il, est, euh, il, est, historien en quelque sorte. Donc, il a beaucoup de connaissances sur l'histoire sénégalaise, sur les traditions, les valeurs et autres. comme ça, donc, je vais aborder beaucoup de questions inhérentes à nos traditions, bien évidemment. Bonsoir, Monsieur Fall. Bonsoir, Monsieur Fall, donc, je vous laisse saluer nos téléspectateurs. Mhm. Euh, je salue tout le monde. Mm -hmm. Bon, et vraiment, je suis content d'être invité aujourd'hui mm -hmm. ici, mhm. cette émission, euh, Cercle des Arts, mhm. euh, pour parler culture, pour parler justement de l'histoire. Je suis vraiment ravi aujourd'hui quand mhm. même de pouvoir euh, faire ressortir ce que j'ai en mémoire et ce que j'ai dans le cœur aussi. Voilà, et c'est avec plaisir que je vous reçois sur ce plateau. Euh, monsieur Fall, on va parler de la jeunesse, hein, la, une jeunesse qui est un peu pervertie en ce moment. On note une dépravation des mœurs démesurée avec ce qui se passe euh, donc actuellement sur les réseaux sociaux partout hein. donc on va parler euh, donc de tout cela et voilà euh, monsieur Fall euh, en commençant je veux savoir ou bien votre appréhension par rapport à notre jeunesse actuelle Euh, vous avez dit une jeunesse euh, pervertie. Mhm. Moi, je pas d'accord, c'est une jeunesse qui triche, qui, copie. En fait, euh, c'est beaucoup de choses aujourd'hui mm -hmm. qui mhm. se passent dans ce monde. Mhm. vous savez, la jeunesse, encore, le sang chaud. ils ne réfléchissent pas sur des inconvénients. Ils ne font que courir derrière les buzz, courir derrière tout ce qui se passe devant eux. sans au préalable euh, calculer les tenants et les aboutissants euh, parce que souvent c'est une jeunesse qui est sur terre qui est là euh, dans les foyers mais enfin on les a laissées à elles-mêmes bon, elles sont dans les rues elles sont les angles de rue aussi partout actuellement dans la ville vous les voyez partout ils travaillent pas ils sont plus à l'école euh, on euh, enfin on dirait qu'ils ne sont pas aidés si pourtant ils sont très bien aidés mais souvent euh, ça dépend de leur environnement aussi ça dépend de l'environnement social, j'ose le dire. Hein. Moi, j'aurais bon, dit aujourd'hui, que, enfin, je dirais aujourd'hui que cette jeunesse-là euh, n'est pas pervertie, ils n'ont fait que copier. Ils n'ont fait que copier ce qu'ils ont vu. Moi, je sais que c'est ça, en fait. ne veut que copier donc euh, comme euh, comment vous, vous la trouvez actuellement voilà et euh, euh durant votre génération donc euh, je pense qu'il y a une, une différence nette entre la génération euh, d'un temps et, et d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux il y a tout et on dirait que les, la responsabilité des parents est un peu écartée maintenant et voilà est-ce que c'est pas dû à cela cette dépravation des mœurs euh, dépravation des mœurs peut-être hein. Mmh. Bon, ça cette aussi, tricherie ça... dont vous parlez donc nous avons une jeunesse aujourd'hui qui ah. en fait eu, euh, cette jeunesse a eu la chance uh-huh. de tout trouver sur terre ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont maintenant l'internet devant eux ah. euh, donc l'internet les aide justement à aller un peu de l'avant à se précipiter en sautant des étapes nous à notre époque il n'existait pas d'internet donc on avait un comportement qui n'était pas vraiment euh, virtuel on avait un comportement normal un comportement réel qui est inné chez nous nous sommes nés comme ça parce que notre grand nos grands frères étaient comme ça ils s'habillaient correctement ils euh, parlaient aussi correctement ils savaient là où poser le pied euh, mais aujourd'hui avec l'internet tout est rapide les gens sont pressés d'aller de l'avant comme je l'ai dit tout à l'heure euh, parce que ils ont tout à portée de main ils interrogent Google ils interrogent l'internet ils ont tout ce qu'ils veulent voir euh, ils regardent tout ce qu'ils veulent voir ils regardent aussi euh, ils savent des choses que nous ne connaissions pas aujourd'hui euh, ça dit qu'ils sont en avance sur nous au point de vue euh, information au point de vue justement même histoire hein bon parce que y a l'internet qui est là vous l'avez vous avez dit tout à l'heure il y a 30 ans il n'y avait pas l'internet comme ça aujourd'hui au Sénégal aujourd'hui nous sommes en 2001 euh, 2021 pardon excusez-moi nous avons l'internet même dans nos poches avec notre poche téléphone donc ça veut dire que les les jeunes d'aujourd'hui euh, on peut les aider mais euh, elles ne sont pas aidées cette enfin, cette jeunesse elle n'est pas aidée elle n'est pas aidée c'est-à-dire que euh, on parle beaucoup sur cette jeunesse là on peut en parler le lundi mardi mercredi jusqu'à dimanche mais on s'arrête là on continue pas il faut continuer à parler avec cette jeunesse là on c'est pas la peine de taper sur eux c'est pas la peine de les frapper non non il faut leur expliquer il faut leur dire les appeler les modeler enfin les fabriquer parce qu'on crée pas une jeunesse on fabrique une jeunesse euh, pour fabriquer maintenant une jeunesse il faut avoir le temps il faut prendre le temps de la fabriquer cette jeunesse là euh, ne rien laisser que oui, euh, il faudrait qu'on reprenne école, etc. Effectivement, on prendre l'ancienne école. Euh, école n'a rien à voir avec la jeunesse. Mais c'est bien que la mais le comportement du maître, le comportement de ce maître-là euh, qui une jeunesse vers là où il Mais si on une jeunesse qui vient en pantalon jean couper les genoux, etc., acheter un pantalon jean à 5000 francs, prendre une lame, couper les genoux, venir à l'école avec une cigarette au bec, voilà, cette jeunesse-là, on, la regarde comme ça. Parce que, on avait, je vais citer un exemple, on avait ce problème-là avec euh, euh, l'agriculture, avec les paysans. Euh, à l'époque, il y avait le président de la République, Senghor. Il savait que le, beaucoup de paysans à l'époque n'étaient pas alphabétisés. Il avait demandé à la RTS de créer une émission qui s'appelait Radio éducative rurale. Cette radio-là, donc, parlait avec les pêcheurs, les artisans, les cultivateurs, etc. Mais nous qui sommes dans la presse, on aurait pu aujourd'hui aider cette jeunesse-là, créer des émissions, sans attendre l'arrivée d'un sponsor. Parce que nous, nous sommes éducateurs. On pouvait créer des émissions dans nos radios, uniquement pour la jeunesse. Pas, je ne veux pas dire inviter la jeunesse, hein. ça dit que c'est des, euh, des notables, de grandes personnalités qui viennent parler avec cette et dire à la jeunesse d'écouter ces radios-là, de prendre base justement sur ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a perdu notre jeunesse. On ne l'a pas perdue. Elle est encore là. C'est-à-dire ils ont une certaine, une certaine euh, préoccupation qui est aujourd'hui la lutte, le football, etc. Or, ça, c'est en fait, c'est des, des, des divertissements. Bon. Allez, par exemple, dans une, dans une cité, vous voyez les jeunes qui sont, euh, se regroupent à l'angle d'une rue ils prennent un café ils ne parlent que de lutte souvent c'est Balla Gaye Modou wala ils parlent que de football c'est Real de Madrid euh, Barcelone en fait c'est leur langage c'est ça qu'ils ont aujourd'hui ils je pense que c'est ça qui est bien aujourd'hui or il y a autre chose à faire moi je m'en souviens encore je n'osais même pas porter un pantalon jean pourtant j'avais de quoi acheter un pantalon jean mais je n'osais pas porter un pantalon jean parce que quand on porte un pantalon jean le matin Le soir, vous allez au cinéma, vous voyez, c'est le bandit qui le porte. Donc nous, on n'osait pas porter un pantalon jean. Okay. Nous, on s'habillait en pantalon tergal, en chemise, en chemise euh, tergal, si vous voulez. En chemise, coton, mm -hmm. blanche. Le était très bien justement lavé. Les chaussures étaient très bien cirées. C'était des formes d'éducation. parce que qu'il faut que, euh, madame, il faudrait que le cœur et l'esprit mm et le corps vivent en harmonie. cet équilibre-là c'est ça qui manque aujourd'hui chez les jeunes. il faut un équilibre naturel ou réciproque si vous bien entre le corps et l'esprit et le cœur même le cœur. donc cet équilibre-là si ça n'existe plus dans euh, chez l'homme chez la jeunesse mais ce n'est plus une jeunesse. parce que bon je vois mal aujourd'hui acheter un pantalon tergal à cinq euh, pantalon à cinq francs prendre une lame couper les genoux Même il y en a qui mhm. À quoi ça sert C'est rien du tout. Mmh. Mais c'est aberrant. On se pose la question pourquoi ces jeunes-là s'habillent comme ça. C'est ce qu'on appelait euh, chez nous s'habiller à la guenille. Ça dit que c'est des haillons. Hein, des haillons. Ouais. Des haillons, c'est des haillons. Bon, donc, la euh, mode euh, là il faut l'aider. Comment aider cette jeunesse-là Continuer à parler, ne jamais baisser les bras. Mhm. On en a euh, le mois de mars, je crois, le mois d'avril. Il y avait des émeutes là mais on en a parlé pour une semaine ben on a laissé tomber il fallait continuer à parler créer des émissions sur ça pour la jeunesse parce que ce sont les jeunes qui sortaient comment ce sont les jeunes qui sortaient durant oui, les qui cassaient etc bon mais ces jeunes là parce que il mhm. y en a qui disent de travail mhm. euh, est-ce que ce jeune qui n'a pas de travail mhm. qui a aujourd'hui 30 ans demain si on lui donne une femme comme épouse à, son âge 30 ans il commence à faire des enfants Quand il aura 55 ans, il va à la retraite, son fils aîné aura 15 ans. Réfléchissez bien ce que je dis. Mm-hmm. Lui, il commence à travailler à 30 ans, il donne une épouse, il a un gosse aujourd'hui. Quand il aura 50 ans, il va à la retraite, mais son fils aura quel âge 55 ans. C'est-à-dire que quand il a 40 ans, 40 ans, je dis 40 ans, pas 30 ans, mais 40 ans. Mm-hmm. Vous mettez 15 ans la retraite. Son fils a il y a des jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui chez moi. Moi, mon fils, qui est mort il y a mois, il avait 40 ans, mais il n'avait pas d'épouse. S'il avait épouse à 40 ans, son fils va avoir 15 ans quand il sera à la retraite. C'est des choses comme ça, des détails comme ça qu'il faut dire aux que vous avez 30 ans, vous avez quel métier Parce qu'il n'a pas appris un métier. alors euh, cette politique que les tenants du pouvoir devaient faire aujourd'hui oui. c'est obliger à ces jeunes-là d'avoir de faire forcément le CM2 après le CM2 si vous pouvez continuer au lycée vous êtes au lycée si vous n'êtes au lycée il faut jamais aller au chômage il faut commencer à apprendre un métier ya a beaucoup de métiers qu'on peut apprendre il y en a que oui. y' a pas de y' en a y' a pas de mais il beaucoup de métiers. mais quand un jeune vient me voir me dit euh, père je voulais du travail aide-moi à trouver du travail je dis ben d' accord qu'est-ce que vous savez faire il me dit rien du tout j'ai pas de métier. ah vous n'avez pas de métier comment moi je vous donne un, un travail c'était pas possible il faut donc orienter vers ça les orienter vers le travail euh, un pays euh, le Cuba. que j'aime bien d'ailleurs mmh. c'est un pays euh, en fait très connu euh, parce que aujourd'hui tout le monde sait que à Cuba on ne va pas apprendre un travail tant que vous n'avez pas fait le cm il faut faire d'abord le CM2 pays tout le monde est alphabétisé tout le monde est alphabétisé donc alphabétisé avant d'aller apprendre, apprendre un métier il faudrait faire le CM2 mais ici au Sénégal on laisse nos enfants dans les rues au lieu de les de les prendre en main. Mhm. et de les amener chez un artisan. Mhm. pour qu'il apprenne un métier nous on le fait pas on le laisse comme ça lui il dit bon va voyager quand est qu'il va voyager Dieu seul mhm. c'est comme ça que nous avons fait aujourd'hui pour négliger nos euh, enfants. négliger cette jeunesse là cette belle jeunesse là une jeunesse sénégalaise c'est une très belle jeunesse parce que ont un fond de départ c'est-à-dire le euh, c'est-à-dire que Mhm. leur oncle ou bien leur grand frère. Mhm. parce que ces grands frères la ces papas là. Mhm. ne portaient jamais de pantalon jean. ils ne portaient jamais de casquette dans les studios. moi je vois ici dans votre studio des gens qui portent des casquettes qui portent des lunettes noires qui portent même des chapeaux et tout ça c'est des trucs de soleil. c'est des verres de soleil et ils portent ça dans les studios mais des verres de soleil c'est pour le soleil des chapeaux aussi c'est pour mais il y en a qui portent ça dans les studios. C'est parce qu'on ne les a pas orientés vers la réalité. D'accord. Pourquoi on portait ça mhm. On ne leur a pas dit. Il faut qu'on leur dise que mhm. ce euh, produit-là, cet habit-là, cette étoffe-là, c'est pour la pluie, ou bien c'est pour la chaleur, ou bien c'est pour le soleil. C'est ça qui manque aujourd'hui au Sénégal. Monsieur Fall, on va ouvrir une autre fenêtre. Hein, cette fois-ci, il s'agit de suivre un reportage euh, qu'on a fait avec euh, les jeunes qui veulent vaille que vaille hein, euh, être au, au devant en cherchant le buzz. Nous allons suivre ce reportage de de Pathé Meng. ci téléfilm yi ak réseaux sociaux la ñuy jaaree ngir mën a am buzz mooy bi maanaam nit ñi di leen gën di bàyyi xel loolee nekk mbir bu nga xamee ne que seetlu nañ ne am na yenn ci ay ndaw yu muy yóbbee ñuy def ay jëfin yoo xamee ne méngawul ak sunu ay valeur Souleymane di koy ñaawlu waaye di ci joxñ baaraamu tuuma ñii di parents yi ñoo si gën a nekk en responsabilité te responsabilité bu ci gën a ëpp mooy ñi def téléfilm yi waaw ñoo ñoo cuune ndax tey boo jëlee xale di ko jëlee film tamit léegi fi ñu dem rek star la dañ koy foowee te loolu dafa nekk euh, lu dangereux loo xam ne parents yi la mënuñu ko sukki na jamono gi léegi fu ñu toll moo gën a dangereux góor yaa ngi sol sol déchiré na nga mën am sa doomu jigéen nga bàyyi ko muy ten di dégradé c'est grave. ca beneen wàll nguur si la mu jàpp moom mooy nguur gi ci boppam ñoo war a taxaw ci ceytuwaat doxalin bi. amul benn film boo xam ne bi amal na importance askan wi benn état bi moo indi problème bi nekk fii moo indi problème mu yàq jikko yi moom la. ñoom ñoo mënoon régulariser affaire bi ay Facebook ay ay internet bi ñuy wax nii mais ñoom la. munoo jeex sa doom parce que noo koy yare da ngay toog télévision boo ko ubbee yaa ngi gis ñu ngi fóonante fële. et moo fi nekk ak ñun église bi xamul lu bon musulman yi xamuñ lu bon. mais état moo fi ñëw indi fi ay franc-maçon ay ay lesbienne góor jigéen yi mais ñoom ñoo dominé léegi grand. jëwrin moom la mu bëgg moom mooy ñu dikkaat ca la nga xamee moom mooy sunu ay mbaax. nga ni jullit nga yàlla nga yaakaar Seydina Mohamed mooy sónent ngay solo nu la neex maanaam di roy loo xam ne yow di sa royukaay. jullit comportement bu baax la la la war a am ab jullit bu génne dañu war a xam ne kii jullit la. tolluwaay boo xamee nag mu ngi woy di jaaxal ñu bëri ci askan wi ñañu jot a dëkk suñu micro jàpp ne nguur gi ci boppam am na ci wàll gu rëy waaye kenn ku ci nekk ci ñu nit war naa xool doxalinam xawatu na ci biir réseaux sociaux yi. di jaajëfal rek Pathé Mbengue ci reportage bi nga xamante ne def na ko monsieur bu ñu ko suivre lu jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy ndaw yi wax nañ ci gis nañ yenn parents yi nga xamante ne jot na leen interroger ñu ngi ñaawlo bu baax li nga xamante ne moom la ndaw di doxalee instant bi ndaw yi lu jëm ci wàllu seen sol colin ak ni nga xamante ne noonu lañuy def ci ci euh, net bi euh, noo ko jàngatee. ba mag ñi def nañ li war a def maanaam kilifa yi. Mm-hmm. borom kër yi def nañ war a def. xale yi ñooy génn kër gi. Mm-hmm. di dem ci seen morom yi di fa am yenn xam-xamu internet yi di dugg ci internet di ko xool di ko yooyu mag yi mënuñu si dara jamono moo egsi foofu jamono moo ñëw ak internetam. fekk fi xale yi xale yi amuñu lu may ay vingt deux ans vingt trois ans ba trente ans fekk jamono jooju yaakaar nañu loolu dong moo war a am loolu dong moo war a xew je encore que ñun ñoo war a jóg pour wax ak ñoom ñoo war a créer ay émission pour jàppale état bi pour jàppale borom kër yi parce que borom kër yi bu ñu xëyee li tal mooy dépense la tal kon nag bu ñu amee ku leen waxal soxla nañ ko état bi aussi soxla nañu ku wax ak jeunesse bi ndax ñoom ñu ngi ci seen liggéey mais ñun j'ai dit tout à que ñun ay éducateurs lañu rajo lañu yor ak télévision ak journal war nañ mën a wax ak jeunesse bi émission yooyu lañ deful attaqué wu mu presse dama wax dëgg gi rek c'est une vérité parce que amul benn émission boo gis muy jeunesse te du ay fecc ay fecc ak yi ay du wax turu fecc bi sax bon mais dañuy fecc rek ñoom mooy seen affaire. mais on aurait pu dire que oui laay mécanicien bi nii menuisier bi nii waaye da nga kii boo ko jàngee ñaata at nii da koy mën da ngay daal di commencé am xaalis ki duñ ko def ñun ci rajo yi duñ ko def ci télévision yi te yooyu lañu ñu waroon orienté xale yi góor yi nga xam ne liggéeyatuñu jàng nañu naam ba am aw këyit diplôme amuñu liggéey war nañu mën a liggéey leneen ndax ndax dañ ñu woo réunion à l' ambassade de Cuba ici à Dakar maa nga toog ambassadeur bi waxee ñun ba pare. ba def cocktailam ñu euh, saafoon te waxtaan ba bëgg a ñibbi mu téyewaat ñu mu leen je bu vous une chose vous n'allez pas y croire du ngeen ko gëm man menuisier laa menuisier laa bu doon liggéey ci affaires étrangères fële ci seen ministère affaires étrangères ils avaient besoin d'un ambassadeur bu war a yor fii Sénégal yor Guinée en même temps euh, fii euh, Gambie moom lañ désigné mu ñëw il était c'était après gars yi di ko xool mun nga man menuisier là effectivement je suis menuisier mais je gère mon truc actuellement mon mon ambassade loolu nag laa bëgg euh, nga xam ni euh, ñi ñuy déglu ak di ñu seetaan ni ci télévision bi que euh, li naan rien n'est impossible borom kër yi bu ñu jógee ba xam ni seen doom bi jàngatul ñoom ñoo ko war a woo waxtaan ak moom bu fekkee daf leen të. fu mu génn ci biti dina dina dégg ñu ko rajo nangam nee nangam wala télévision nangam nee nangam loolu bu ñu ko defee rajo yëpp def ko télévision yëpp def ko jàppale jeunesse bi je crois qu'on aura fabriqué une très belle mhm, parce que monsieur Fall am na ñuy dem ba di joxoñ baaraam aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy nguuru Sénégal ne kenn bàyyi ñu kenn di jëm ci wàllu éducation xale yi tey ñëpp la ñëpp lañ ci boole muy parents yeeg nguur geeg ñëpp. wax naa ko nguur gi dafa war a nekk régulateur social lu jëm ci wàll net bi. wax naa ko. Mhm. wax naa la ne la boo ko boo defee émission yu mel noonu. je répète encore les émissions. Mhm. di jàppale borom kër yi jàppale euh, nguur gi mais buñ ci xaar buñ ci xaar mukk ci àdduna sponsor. Mhm. dafa am émission yoo xam ne dafay euh, am njariñ émission bu am njariñ léegi bareetul ay plateau moo am. Euh, nag ma baal nag maa ngi liggéey ci presse di wax yu mel noonu. mais <laughs> wax dëgg aussi. Mm-hmm. ay plateau politique moo leen gën a intéressé. ak wax safaan ba ak wax njaaxum nga Sid Lamine wax na ko fii nee la le train qui vient à l'heure ne vous intéresse pas. Mm-hmm. Euh, saxaar guy tardé moo leen gënal saxaar guy ñëw heure loolu ngeen di wax. Mm-hmm. mais di waxoon loo xam ne aussi amal na njariñ xale yi bu boobaa yow muy wax sax sa njariñ lay doon ndax ci sa kër lay commencé yow muy wax sa njariñ jarbaat la sa njariñu doom la yëpp ci am njariñ. xale kenn du ko déedéet da ngay wax ak moom mooy li may tere toujours ngay dóor xale c'est pas la peine nga dóor ko. wax ko wax ko ba mu xam li nga koy tere lan la. mais boo ko nee tell du xam li nga koy tere day yóoxu rek dem yoonam. te monsieur Fall bu hmm? fekkee ne tey référence dañuy wër ci wàllu éducation je pense que ne ndaw yi am na ñu ñu war a mën a référé wu bu baax bokk na ci ki nga xamante ne jot nga ko fii site léegi mu El Hadj Sidi Lamine Niass bokk na ci ay ñeneen tey bu ñu jëlee référence ci euh, wàllu recherche Cheikh Anta Diop euh, chercheur. Euh, fii euh, bu dee Afrique Thomas Sankara ñu bari ci wàllu diine sëñ Touba maam El Hadj Malick Seydina Limamou Laye ñëpp euh, donc bu ça veut dire que ne Cheikh Omar Foutiou booy cité daal du jeex ci ay références yoo xamante ne war nañ koo mën a jël ba mën a moytandiku yu bari loolu da nga ko bëgg a jël léegi ñu wax ci. waaw nga waaw war na cee mën a am war nañ cee mën a référé wu nga xamante ne nañ mooy tënd ko euh, tooxidoo na loolu bala nga ko mën il faut que dama euh, dimbali jeunesse bi. Mhm. ci seen religion d' abord nga dimbali leen ci. Mhm. parce que ñaar religion fi nekk. Mhm. Euh, bon boo leen ci dimbalee ba ku nekk sa religion nga xam ne sa religion lii la lii la santaane lii la bañ. ci ngay mën a am occasion profité ci pour liggéey la loolu parce que ju bari seen way si la daf leen wax liggéey jaamu yàlla. liggéey jaamu yàlla liggéey boobu nag la ñuy négliger en général jeunesse bi te amuñu ku leen ko wax nañu wuti liggéey moo gën toog ci buntu mbedd yi ça je le moo gën toog ci angle koñ yi di naan ay café di werante werante football ak werante ay làmb ndax fañ koy defee 14 heures moo leen fi fekk ñu war a añi euh, man de gis naa une jeunesse boo xam ni mën naa wax dëkk ba nag waaye dama koy <laughs> c'est pas la peine. Euh, euh, mais euh, benn xale boo xam ni chaque vendredi day ñëw ci benn kër. day gaare saretu mbaam ci buntu kër ga. tous les vendredis. ñëw ci jigéen ji xam moo fay sëy. kooku ni ko mbalit maa ngi nëre mu jël ñetti saako ñeenti saako mbalit yi fa nekk def ci saret bi dem tuur yi bu ñëwee delloosil ko ay saakoom kooku lem denc yëkkat deux cent francs jox ko mu dem ak saretam. deux cent francs mu dem noonu lay nekkee ak moom tous les vendredis le gosse il vient ak saretu ngi liggéey mais j'ai à la femme ni ko <laughs> en fait kii deux cent francs yi nga koy jox bien que tuuti na amal ko njariñ parce que bu demee mën na jox yaayam mu jënd ci café ngoon mën na ko jox papaam mu jënd ci pon et puis mën na ci am yeneen deux cent francs aussi ci yoon bi ndax du yow rek lay tuulal mbalit mi ngi liggéey bu déwee nee mille vingt et un man ko fas la yore saretu fas dootu yor fas saretu mbaam le gosse je lui ai posé une question je lui ai une question man ko yow euh, ku moom li mu maa moom maa moom mbaam maa moom euh, saret bi donc mi ngi liggéey et c'est un gosse qui n'a pas 17 ans da nga koy yéene lu nekk parce que commencé na liggéey da lay wër ni kii mi nga xam les coins les recoins coono bi ci nekk ak njariñ bi ci nekk ndax bu demee yaayam a ngi xaar xëy na mu jox ko ñaar fukk de 200 mu jëndee ko suukar loolu jom pour suukaral papaam kafeem jom boobu mooy continuer moom ba bu nekkee mag boo ko fekk je suis sûr et certain boo ko gisee xam naa dina soppeeku xale yooyu moo amatul nag évidemment xale àll la bokkul ak ñi nekk fii ñi nekk fii nag pour nga dimbali leen da ngay wax ak ñoom wax ak ñoom boobu lañu ñu amul parce que yow boo jëlee émission bi ngay def fii ci faj yi yàgg ñi fi nekk journaliste yi lu ngeen di wax way way la jeunesse xamul lan la rek soo ba ngoon mhm. mais waxulu la ñoom émission ngeen di def il faut nga orienter débat bi foo xam daf leen di intéresser ñoom jeunesse bi. manière bu dafa am bu ñu war a communiquer ak ñoom donc. waaw daf leen di intéresser. daf leen war a intéresser li ngay def. boo communiquer ñoom une fois deux fois trois fois dina mujj nag émission bi du leen rëcc tout le temps day ñëw di ko xool si chaque fois di déglu nag message bi nga leen di jox. man ci yéen laay dal yéen journalistes yi wax leen ak jeunesse bi te ngeen bàyyi bi ngeen di def yéen politique moo leen intéressé man dama koy wax de. je suis un produit de Sidy Lamine Niass. yaa ngi ci groupe bi de ah. waaw mais je suis un produit de Sidy Lamine Niass. <laughs> Mm. dëgg gi moom mooy jot da nga koy wax. Mm. wax leen ak jeunesse bi. Mm. yéen a mën a jàppale jeunesse bi. jeunesse bi di jeunesse jàmbur de ñëpp ko bokk. ma nga sa kër ma nga sama kër ma nga kër keneen. nañu leen dimbali ci lenn orienté leen vers le travail. Mm-hmm. ndax yow xam nga ko yàgg nga ko wax c'est le travail paye. Mm-hmm. liggéey ko yor nañu leen orienté foofu nañu wuti liggéey ku ci amul liggéey demal nga jàngi métier. boo jàngee métier un an deux ans. commencer récolter ses fruits parce que boo toogee sa buntu kër rek liggéey du la fa fekk kaay ma jàngal liggéey du la fa fekk ñoom ñoo war a dem vers les artisans pour jàngi métier. waaye monsieur fa yaa ngi nekk ci administration xam nga ne tey ndaw yi ñu bëri ngi bëgg a liggéey am na sax ñoo am na am nañ diplôme ñi pare seen formation yaa ngi ci administration gis nga nga xam ne ne stage yi gars yi dañuy euh, demandé à chaque fois ndegam ñoom la ñu mënul jël rek ñi def formation ba pare. asamaat ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti bëgg a bëgg a wut liggéey te defuñ ko. boo yóbboo foofu euh, waxtaan bi mhm. day nekk benn waxtaan. Mhm. parce euh, ñun bi ñuy jàng liggéey bi ñuy commencé liggéey ci bureau yi. Mhm. booba ay euh, amoon na ay cadre amoon na ay cadre intermédiaire amoon na ñoo xam ne ay lañu. mais aujourd'hui koo laal tey jii cadre la. parce tout le monde ñëpp am ay licence licence maintenant dafa te bu njëkk un bachelier dans un quartier ñëpp koy xam maintenant tout a la tout le a a ñun na suñu temps yooyu amul woon ñun ay CAP amoon BEP BP yooyu amoon école de formation yi léegi y en a beaucoup te suñu temps ñun ay ñaari école de formation moo nekkoon Dakar mbaa ñett connu mais donc loolu moo indi chômage bi on a fabriqué beaucoup de bacheliers beaucoup de licenciés maîtrisards y en a beaucoup foo leen dugal amul cadre intermédiaire amul maanaam ku ne ci digg bi léegi koy recruter aussi ak loo ko mënti aussi licence la yore nga xam ne léegi nag donc waa ce pays là je dire que bon euh, pour avoir une aussi une très belle jeunesse en vers les années deux mille quarante. waaw deux mille ci kanam waaw. <laughs> Mhm, des na tuuti dans vingt ans mmh. il faut les amener. jël leen yóbbu leen ci camp militaire yi nekk fa. ñu jël jeunesse bi. yóbbu leen ci camp militaire yi. ci camp militaire. ñi nga xam jàngatuñu. ñu jàngatul waaw ñu jàngatul. Mhm. pourquoi ñu signé un. ñu signé un engagement volontaire. Mhm. daam volontaire lañ quoi ñu dem. comme militaire yi ñu jël rek quoi. ñu signé ko dem. Mhm. nga jël région yëpp bu ci nekk nga jël ci une quantité bu bari quoi. bu ñu demee ci camp militaire dafa 6 muy instruction de base maanaam li ñuy jàng muy un tronc commun ñu bokk ko nga commencé ci ventiler nag ñii ay mécaniciens ñii ay chauffeurs ñii ay nangam tax nangam le budget du ministère de la jeunesse ngay jël. orient dagg ko fàq ko tibb ci lu bari yóbbu ko euh, ci euh, camp militaire yi maam yóbbu ko ministère des forces armées quoi ñu domicilier fa boobu opération nga xam moom mooy financer donc ces gens là nga dem ministère aussi de des nga fàq bu ñu ko déggee ma dee nag nga fàq ci aussi lu bari jox ministère des forces armées pour ñooñu ministère yi bu koy def su ko defee ñooñu de lañ mën a dundal di nga mën a am ay éducateurs yu fa nekk di nga mën a dem aussi fay ay euh, chef d'entreprise artisanat ñoom ñu fa jàng si yépp c'est pour fabriquer une boo xam ni en deux mille quarante bu ñëwee fii seen kër yi fii ci dëkk bi mais ils pour pouvoir nit ñu borom kër lay nekk ñoo xam ne am nañ métier déjà coono bon coono liggéey la xam xamuñu beneen coono mais cest à xale yi fii xamuñu coono. mosu ñoo bay mosu ñoo def dara lu dul génn école toog seen buntu kër. est enseignement bi monsieur Fall euh, ci wàllu enseignement tamit euh, bu njëkk ba ak léegi est-ce que amul différence tamit ba tax mu xaw a yàq tamit tuuti lii di éducation yi. waaw euh, enseignement bu njëkk ba ak léegi bokkul. Mhm. ndax ñun bi ñuy jàng école bon ñemewuñu woon sax gis suñu maître. ci mbedd mi. Mhm. ndax boo ko gisee dimanche mbaa samedi ci mbedd mi. Mhm. parce que boobu dañuy jàng samedi matin samedi soir nga dul ak mercredi soir dama jàng. boo ko gisee ci mbedd mi bu subaa da lay interroger nga xam ne yow doo boo ko séen da ngay nëbbutu sa leçon da nga koy jàng. il m'est arrivé une fois ma taxaw suñu classe ni di réciter sama leçon réciter réciter réciter réciter yàlla def ba ma mën mën naa leçon bi quoi réciter naa ko ba mu jeex suñu maître ni ma naa ko analyser les deux phrases jëkk yi. analyse logique ak analyse grammaticale mu bett ma quoi heureusement ma analyser ko logique parce que booba ñun suñu oh c'était bien euh, analyser naa ko ko mais depuis ce jour là lu ma jàng ak lu ma lire dama koy analyser logique ak grammaticale ba tey ji may wax yow nii euh, dinaa di bàyyi xel ci bari ci yu mel noonu euh, c'est-à-dire que maître ba la doon jàngal lam la doon jàngal aussi moom noonu la meloon mais maître léegi yi bokkatul ak maître jëkk yi ndax maîtres yi léegi yi li ñu jàng la quoi dañ fi ñu fekk fi internet j'étais des étudiants ou bien des élèves donc dugg commencé liggéey dans la vie professionnelle yor ay élèves donc loolu la ñu mën a wan seen élèves il faut ñu wax ak xale yi amuñu jeunesse bonne de ni ko nit ñi waxee moo baaxul li fi amoon ma répété ko ci mbedd mi ñuy toj ay kër jàmbur yooyu dañoo waxaloo jeunesse bi xool dañoo wax une fois deux fois trois bàyyi dañ ci war a du question leen liggéey Euh, erreur la lu erreur sax nañu jàng métier ngeen di wax am na ñoo xam ils ont été financé ay xaalis yooyu lu ñu koy jëndee doo ko xam sax bi leen financé xaalis li ñu jëkk jënd mooy pantron yu ñu tagg la jëkk jënd da nga leen di jàngaloo métier voilà la réalité ku ci amoon métier di nga tal leneen lu dul agressé ji di tal leen lu dul daj bi ku jàmbur ndax bu ñu la joxee par exemple je cite un exemple ñu jox la oto jàmbur dina ko répar loo nga nekk mécanicien xam yaa ngi sëgg ba ngoon doo dem di daj ay bitigu jàmbur doo ko def yaa ngi sa liggéey bi surtout sa patron ni la defal ma lii defal ma lale donc su bàyyi di def leen loolu la ngay def mais boo amul loo def nag di nga am possibilité dem agressé ji di nga am possibilité aussi dem euh, daj ay bitigu jàmbur parce que amoo loo def li lay intéressé mooy taxaw ci àngalu koñ ba en tout cas dada jaajëfal rek bu baax monsieur Fall Cheikh Mbacke Fall nekk ci administration Walfadjri donc ñu ko ñu muy ci comptabilité te administration bi waaye yàgg fi lool nag muy doyen fii ci Walfadjri waaye yàlla may ko euh, donc euh, yeneen euh, connaissance bi jëm ci wàllu li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom lay àdduna bi di doxalee ak ci wàllu valeur tradition ak yeneen ak yeneen di la jaajëfal rek bu baax mu monsieur Fall. jërëjëf man kay fi ñoo ko bokk waaye damaa doyalu ci émission bi parce que. Eh. doyalu ma ci daal xam naa beneen yoon daal ñu gën koo. Eh. def. ñetti thèmes wala ñaari thèmes. ko def mu gën a xóot quoi. da nekk sama consultant incha allah dinañ lay ñëw. di di di la la jël ngay wax ci yenn parti yi nga xamante ne dana intéressé ñi nga xamante ne ñooy askan wi. di la jaajëfal rek euh, kon maa ngi lay sant de gërëm di wax toujours vive la jeunesse sénégalaise. merci je vous aime bien cette jeunesse enfin j'aime bien cette jeunesse là. merci merci beaucoup <laughs> merci beaucoup monsieur Fall. qui nous inspire. Et de cette inspiration, nous faisons des poésies qui sont si fortes et si élevées qu'elles creusent des fleuves et font des méandres. Rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Ça andi à anda à andan. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. En Afrique, quand on vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette formule du sage de l'Afrique, devenue proverbiale, aura fini de s'incruster dans la vie des hommes de lettres. Amadou Ampateba a ainsi réussi à tracer avec sa plume un chemin d'inspiration jusqu'à sa mort le 15 mai 1991 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Né en janvier 1900 à Bandiagara, ancienne capitale de l'Empire tout couleur, Ampateba est descendu d'une noble famille Peul. Il fréquente l'école avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française. Après ses brillantes études et son parcours parsemé d'embûches, Amadou Ampateba fonde l'Institut des sciences humaines à Bamako après l'indépendance du Mali en 1960. En 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En son mandat à l'UNESCO prend fin. Amadou Ampateba se consacre alors entièrement à son travail de recherche et d'études. Les dernières années de sa vie, il les passera a classé ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires Amakoulel, l'enfant Peul et huit commandants qui seront publiés après sa mort le mai Merci à de Seyndir euh, pour le portrait, euh, donc très intéressant et instructif euh, sur Amadou Ampateba. Voilà, et nous passons au dernier virage de cette émission Cercle des Arts. Et nous allons toujours parler de l'art, bien évidemment, avec la, la, photographie qui est de l'art aussi. Voilà, et je reçois comme invité sur ce plateau Etan Waïs Salman. Bonsoir. Bonsoir Fatou, merci de l'invitation. Voilà, Salman est un jeune photographe euh, qui vit en France et qui travaille son œil avec le monde qui l'entoure, euh, fibre artistique dans le milieu urbain. Et vous avez trouvé une source d'inspiration au Sénégal, Salman. voilà, exactement, vous m'avez très bien décrit. Mm. Euh, c'est mon premier voyage au Sénégal et j'ai pu découvrir plein de plein d'émotions dans le regard des gens. Les jeunes euh, ici au Sénégal ont plus d'émotions dans le regard qu'en France. J'ai pu prendre des photos des jeunes enfants euh, qui enlevaient l'eau des pirogues, ainsi que les adultes qui chargeaient les pirogues pour aller pêcher. Mmh. J'ai également pu découvrir des choses que je n'avais pas vues et c'est un plaisir. Mmh. Donc vous avez pris, pour, pu prendre des poses originales, voilà, qu'on voit sur le petit écran, des poses originales de, de photos. Voilà, c'est l'originalité de l'Afrique et du mm. Sénégal en quelque sorte. Voilà, totalement. Mm -hmm. C'est quelque chose, une expérience que j'ai pu vivre, euh, une mm -hmm. découverte pour moi et ça permet de travailler mon œil artistique. Okay. Quelle est la particularité de ces poses La particularité, euh, mhm. c'est que c'est surtout dans le regard que ça se joue. Les gens euh, ont un regard euh, avec plein d'émotions, mhm. quelque chose qui, qui, se transmet, qui est agréable à prendre en photo et qui se ressent. Mmh. Voilà, donc euh, Euh, la photographie, c'est de l'art. On étudie la photographie ou bien Ça peut s'étudier. La, la, photographie, c'est le huitième art. Mm -hmm. Il y a des écoles, des BTS, des facs de photographie. Mm -hmm. Mais ça peut aussi s'apprendre en autodidacte tout seul, euh, en regardant soit des tutos ou en découvrant avec un appareil photo les réglages et en s'entraînant seul. D'accord. Et vous avez fait la formation en photographie en France ou bien Oui, voilà, j'ai fait un lycée euh, photographe euh, qui s'appelle euh, Brassailles dans le 15e arrondissement. Okay. C'est sur trois années, à la fin on ressort avec un bac professionnel photo. Et après, il y a plusieurs déboulés, débouchés, ça peut être dans la photo, dans la vidéo, dans le son. Ça donne sur plein de métiers. Mhm. Aujourd'hui seulement, tout le monde est photographe avec nos appareils téléphones. Donc, est tout le monde peut photographier ou bien n'importe quelle photo n'est pas professionnelle ou n'importe quelle photo n'est pas photo. c'est ah, vrai, de nos jours, tout le monde peut faire la photo euh, hmm. avec son téléphone, mais ce qui change, c'est hmm. la façon dont s'y prend. Pour euh, faire des photos, il y a l'automatique. Mm. L'automatique, c'est l'appareil euh, tout pour, nous, on n'a pas besoin de faire de réglages. Hmm. Mais la vraie difficulté en photo, c'est quand met l'appareil photo en manuel, C'est à nous de faire les réglages, de gérer les ISO, le diaphragme, la vitesse. Et c'est là où elle est la difficulté d'avoir une bonne lumière en faisant soi-même les réglages sans, les, sans que ce soit l'appareil qui, qui, fasse pour nous, en gardant le contrôle. Voilà, donc la photographie professionnelle, c'est le fait d'user donc euh, la photographie manuelle, mais pas nos appareils téléphoniques. Voilà. La photographie euh, manuelle, c'est nous qui choisissons la photo qu'on veut faire. Quand c'est avec le téléphone, on ne choisit pas, c'est le téléphone qui fait. Mais si on choisit tous les réglages, on va avoir la photo qu'on veut si on met tous les beaux réglages. D'accord. Voilà, donc on vous apprend tout, tout à, l'école, voilà, l'école en France, euh, on vous apprend tout cela, la manière donc de, de, de, de prendre une photo, euh, tout cela, ça s'enseigne. Ouais, ça s'enseigne, c'est plus la manière dont on doit travailler les réglages qui s'apprend. Après, c'est chacun fait les photos euh, comme il le souhaite, chacun a ses points de vue. Du coup, ça, c'est à nous de le travailler tout seul. Mais ils nous apprennent euh, vraiment la technique, euh, à avoir une bonne lumière s'il y a beaucoup de soleil, d'augmenter la luminosité s'il fait nuit, plein de, plein de facteurs qui nous apprennent. Mmh, D'accord. Donc il y a des critères à respecter pour faire une photographie professionnelle donc ça, Oui, je dirais. Mmh. Après, ça dépend de, des points de vue des gens. et voilà donc euh, vous faites des photos là-bas en France euh, au Sénégal mais comme venez de le dire euh, il y a euh, l'originalité une particularité, par rapport à ça voilà on voit des, photos noir et blanc pourquoi cette couleur pourquoi le noir et blanc parce que je qu'il y a plus de contraste, on voit plus les traits de la peau, du relief. Mmh. Et après, euh, je vais pas m'en cacher, c'est aussi un photographe euh, qui m'a inspiré, qui s'appelle Miaous. Okay. Et mhm. c'est mmh. ce photographe qui m'a beaucoup inspiré pour le noir et blanc. C'est un photographe que je suis de près et que j'admire et ça m'a influencé. Mais c'est aussi pour, euh, pour également voir les traits du visage, le contraste. Et... Mmh. Ça sort plus. Voilà. D'accord. Et vous avez donc euh, eu à faire des photos ici au Sénégal qu'on voit et aussi euh, des, des, des photos en France. Euh, c'était lors des, des manifestations, de grandes manifestations, on dirait. J'ai pu faire également sur des manifestations. Ouais. J'ai fait également sur des concerts ou des clips, mm -hmm. sur plusieurs événements. Après, je fais aussi également tout le temps des photos quand je sors avec mes amis, quand je suis dehors. Dès que je vois quelque chose de bien, je le prends en photo. J'ai souvent mon appareil. Ça devient un réflexe de l'avoir sur moi. Mais les manifestations, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et c'est très intéressant. C'est intéressant. Et quels sont vos projets Mes projets euh, professionnels oui. Ce serait euh, pour l'instant d'avoir euh, assez de, de photos mm -hmm. pour faire un bon livre euh, photo euh, que je pourrais montrer à mes proches. D'accord, un, un livre photo. voilà voilà euh, voilà ça ça ça c'est rare de voir ça des livres photos c'est le fait de euh, non, un book photo c'est quelque chose qui se fait souvent c'est mhm. on prend les meilleures photos qu'on a fait selon le photographe mhm. et après on les présente à quelques personnes c'est courant mais mhm. ça prend du temps voilà il faut donc essayer donc de rassembler beaucoup de photos de, diverses photos pour pouvoir faire ça Voilà, il faut les meilleurs surtout. Meilleurs, d'accord. En tout cas, euh, voilà, je pense que euh, les, les photographes sont, sont, sont, bien payés en, en France, n'est-ce pas euh, ça, ça, ça, dépend. ça, dépend. Dans les photos de mode, euh, c'est mm. souvent payé. Mm -hmm. Après, les photographes indépendants, mm -hmm. c'est pas très bien payé. Ça dépend du, du milieu et du niveau, mais pour l'instant, je ne suis pas là pour l'argent. Je fais ça juste parce que j'aime. Et... C'est la passion, d'abord. Voilà. Mmh. Espérons qu'un jour ça paye. Mais dans le milieu cinématographique, euh, c'est bien payé. Dans le milieu cinématographique, j'imagine. Mmh. Après, euh, mmh. je ne suis pas dans ce milieu, du coup, je ne connais pas, pas non plus mhm. tous les revenus, etc. Mais mhm. je découvrirai euh, plus tard. Plus tard. En tout cas, euh, merci à euh, Salman. Et comment trouvez-vous le Sénégal comme c'est votre premier donc euh, c'est jour ici. Euh, ouais. Mhm. C'est un pays très beau en tout cas. Mm -hmm. J'ai pu découvrir plein de choses, les gens sont super. Mhm. Et il y a de la générosité dans les regards, dans, leurs paroles. Tout est très sincère et j'apprécie ça. et bonne merci continuation, beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc euh, Salman qui était notre invité qui nous a parlé de la photographie et autres euh, en début d'édition j'ai eu à avoir euh, donc euh, monsieur Cheikh Mbacké Fall qui nous parlait de la jeunesse hein, des solutions qu'on doit prendre pour donc remédier à tout ce qu'on voit actuellement les choses dues aux dépravations des mœurs et autres un grand merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi un grand merci également à toute l'équipe technique merci à Jacques Gabriel Préra merci à Pape Samb merci à Keba merci à nos monteurs Barak Mbaye et Ndiassé merci à vous chers téléspectateurs nous vous donnons vous inchallah samedi prochain pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien